la, de la ville de Thiès, résolution générale. Nous, femmes du parti Réumi, réunies en assemblée générale, nous appuyons sur la grande clairvoyance dans la démarche politique de notre leader, le président Idriss Seck, adoptons à l'unanimité présente résolution générale. Considérant le pilotage à vue du régime en place qui, après avoir annoncé une gouvernance de rupture, passe de Yoonu Yokkute au plan Sénégal émergent, en contradiction avec les promesses du Conseil des ministres décentralisé, ainsi qu'avec celle du programme de développement communautaire. les difficultés quotidiennes des populations avec la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport, de l'eau et de l'électricité, alors que le chômage des jeunes frappe toutes les familles. Considérant les problèmes de l'école sénégalaise avec les grèves répétitives des élèves et des enseignants pour des promesses non et des accords respectés par le suffisante en intrants agricoles et de bons, des lors des campagnes agricoles. Considérant les, les problèmes institutionnels aggravés par l'acte de la décentralisation et les et les dominations complaisantes à caractère politique, donc sans rapport avec l'intérêt général. L'Assemblée générale des femmes et fait la claire analyse faite par le président Idriss Seck à l'entame de la deuxième alternance, analyse qui n'a pas été prise en défaut après bientôt trois ans. Appelle l'attention des femmes et autres militants du parti sur l'impérieuse nécessité du renforcement de la mobilisation de tous pour dérouler notre propre stratégie envers les échéances électorales futures. Idrissa jóg na les femmes de Thiès jóg nañu ak ak moom ànd moom réew bi yëpp jóg na ñun ñu ànd ak jom ñu moom au merci fait à Thiès septembre l'assemblée générale des femmes merci waaw maanaam ñun jigéen ñi réew yu Thiès ville bu Thiès ñoo daje coono gi ñëpp daje ñoo daje tey bind résolution bii muy maanaam li ñu dajale tey ci cyber campus bii bokk na ci jaaxle jaaxle ci suñu njaboot gi jàngul jaaxle ci suñu mbokk yi ñuy jël di tëj ci kaso bi ku sëqat ñu tëj la ñun daal nguur gi moo ñu jaaxal moo tax tey ñun jigéen ñi ñu àndandoo daje ci biir Sibeen bii ni dañuy feddali suñu kóllëre ak Idrissa Seck dañu koy wax ni ko dañoo yokku waaye wàññeeku ndax ba ñu koy a jàppale ñun dong la léegi suñuy doom màgg nañu mat nañoo wote takk nañuy jabar seeni jabar dinañu wote suñuy doom yu jigéen am nañu jëkkër seeni jëkkër mbooloo mi dafa yokku waaye wàññeeku ndax kat ñun dañoo diggoon gouvernance sobre et vertueuse waaye dañoo gis gouvernance sombre et mu jaaxal ñu digoon ñu Sénégal émergent waaye ñun Sénégal stagnant la Sénégal daal maanaam fa mu nekkoon demul ndax ki ko jiite daa xamul yoon wi muy jaar la ko Idrissa waxoon ca commencement ba nee woon na ko doo moo doom élection présidentielle kañ la da nga kenn xamu ko kenn xamul élection présidentielle kañ nit ñay tatone rek ki war a dem élection 2017 ñimewul wax na ko ba ndax nit ñi ba ñu woteel ko waaye ñimewul 2017 moo la gën a xam ne du ci dem présidentiel lenn kay la mënul a ñàkk a def mooy législative nañu takku nag ñoo ku ñu am ak ku ñu yaakaar ak ku ñu ko mën a jële ji kees moom jaaxaluñu fii lu Cees jaaxaluñu kees gii moom kenn ku ne Ablaye Wade indi na ko fi pour mu jàppale te ba ñu jàkkaarloo dañ koo dund moom mii it gis ngeen ko barki dem moo njaay dañ koo yóbbu ardo ba ay mbokkam jaaxle mu jaaxle ay mbokkam def Cees moom duñ ko mos seen famille du waayul wàññi. waaw Idrissa moom mooy suñu dernier leader kenn ku ne da ngaa doon maam moo xam ni démb ak bërki démb boo daan dem buñ daan dem xare dangay taxaw xas léegi nag xas dafa xewi mooy taxaw jëlu xeej samp ko ni xeej bii ma samp bu ma demee dinaa rey nangami nit loola xewi na waaye ñun ñii. ñu nag Idrissa ñu kenn gisuñu kenn xooluñu lu keneen yor Idi rek képp doomu kese ñu nag moom ba pale grands faits c'est parce que nous savons qu'au Sénégal, rien ne marche. Dans tous les secteurs, il y a des mécontents. Les gens sont en grève de gauche à droite. Vous savez que la santé en grève. Vous, avez vu le manque, euh, et les enseignants et les élèves. Et parfois, même on prend des enfants, des élèves, pour les, euh, euh, pour les incarcérer. Vous savez, y, y, a un blocage. décentralisation. Même si vous êtes journaliste, vous savez que, bon, ça fait défaut. y a un grand blocage. Maintenant, il n'y a plus de... Les communes, les communes ne marchent plus. Pourquoi À de l'acte 3 de la décentralisation, qu'on doit même... Il, euh, est, il est même prévu d'amener euh, euh, l'acte 3 de la décentralisation au de l'Assemblée nationale. Il y a trop de mécontents dans le panier du mar, de, la, ménagère. Vous voyez, tout est devenu cher. dans ce pays. Personne, personne. Les gens, à l'école, les élèves n'ont plus de bourse. Euh, vous, avez vu tout, ce, qui s'est passé euh, pour que les élèves euh, prennent leur bourse. La moitié des élèves n'ont pas reçu leur bourse. Mais, je ne sais pas, les intrants agricoles, l'insuffisance euh, des, des, denrées, l'insuffisance euh, des... Les euh, bourses, ah, pour les bourses familiales, bon, wow, je pense que c'est vraiment... J'ai envie de rire quand j'entends cela. 25 000 francs tous les trois mois. Tous les trois mois, 25 000 francs. Ça fait, ça fait une femme divisée par trois. Ça, ça donne Et ensuite, au niveau de les gens ont familiales pour faire la politique. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et les bourses familiales, c'est pour tous les citoyens nécessiteux qui en ont Votre camarade a euh, partage de cet cet avis. Parce que vraiment, il ne pas ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Le gouvernement t'attend. Le gouvernement t'attend. et partout, dans, tous les dans, dans, tous les secteurs, le gouvernement t'attend. Je ne pas ce qui est dans ce Et eh, vous, vous, voyez, nous, en tant que euh, militants de Réunion, nous avons reçu beaucoup de gens qui ont quitté, la, qui ont quitté l'APR pour venir à euh, Réunion. Merci